pour faire la cuisine. Taï, euh, on vous propose du ragoût de bœuf ou de veau, euh, communément euh, appelé le touffé. Le touffé sénégalais. Alors, le touffé, c'est une sauce à la viande et aux pommes de terre. Est-ce que tu aimes le touffé Waouh, j'adore le touffé. Tu adores le <laughs> touffé. Qu'est-ce que tu adores dans le touffé Ndawalbi. Ndawalbi, c'est-à-dire la viande. Waouh. At mhm. euh, pommes de terre, j'aime bien. Les pommes de terre. Alors aujourd'hui, nous vous, nous voyons une recette sénégalaise de ragoût de veau aux légumes, vraiment simple euh, à mettre en œuvre. Le touffé, un nom wolof qui est en fait issu de la déformation du français

étouffé bi lañu jël daal di ko dagg def ko touffé. voilà étouffé de cuisson maanaam dañoo xoj togg bi <laughs> ñu tuddee ko touffé. <laughs> il vous faudra en tout cas compter environ 50 minutes de préparation. li nga xam ne ne que mooy euh, touffé bi boo ko bëggee togg dina jël 56 simili. alors les ingrédients il vous faut forcément de la viande de veau ou de bœuf il y en a qui utilisent. de l'épaule d'agneau aussi. pour mhm. le faire. boo bëggee togg tufe yàpp bu la neexee nga jël euh, épaule. épaule xar bu ndaw. Mhm. bu la neexee nga jël xar bu ndaw bu la neexee tamit nga jël yàpp nag ça dépend ci li nga am rek. il vous faut aussi des pommes de terre. di nga soxla tamit ay pommes de terre. il vous faut de l'oignon. di nga soxla soble. il vous faut de la carotte. di nga soxla carotte. il vous faut de l'ail. di nga soxla laaj. il vous faut un cube. di nga soxla benn cube. il vous faut du laurier. di nga soxla ay xobu laurier. un petit peu de moutarde. di nga soxla tuuti moutarde. de l'eau. Euh, ndox. de l'huile. at diwlin. du sel. at xorom. et du poivre. at tuuti poobar préparation naka la ñuy toggee commencez par découper et nettoyer la viande. da ngay jël sa yàpp bi nga am nga jël ko raxas ko ba mu set nga daal ko ensuite trancher les pommes de terre et les carottes en gros morceaux. nga jël pomme de terre et les carottes yi nga xolli ko raxas ko daggate ko ay morceaux yu et pendant que vous avez votre couteau en main faites-en de même avec l'ail et l'oignon. bu fekkee ne da sa pomme de terre bi ak sa tomate ak sa carotte bi ba pare nga jël ci wet bi laaj bi nga xolé ko daggate ko. dans une cocotte faites revenir la viande avec un peu d'huile. nga jël sa cin nga daal di si def diwlin nga daal di rosi sa yap 15 minutes à feu moyen. nga jël ko fukk ak juróomi simili nga wàññi sa gaz nga koy yëngal ajouter ñëw après nga jël soble bi nga xooli ko dagate ko daal di ko ci def laaj nga jël laaj bi nga xooli woon dagate ko nga def ko ci biir yàpp bi ba ba tey le laurier nga jël xobu lorier yi nga def ko ci biir la moutarde. nga jël moutarde bi nga def ko ci biir yàpp bi. puis émietter le cube. nga jël li nga xam ne ne ko mooy cube bi nga dindi ko ci emballage bi nga daal di ko toj ci biir yàpp bi. et salé. nga jël xorom nga xorom. et poivré à votre convenance. nga jël xorom bi poobar bi at euh, laaj bi nga jël ko nga def ko ci biir yàpp bi mais ci dose boo xam ne ne ko doy na pour yow. vous pouvez maintenant ajouter les légumes et l'eau après vous nga jël li nga xamné né ko moy de terre bi nga def ko ci après nga jël ndox nga et il ne vous reste plus qu'à couvrir nga jël sa tin nga oup et laisser mijoter à feu doux pendant environ 25 minutes Vous bay ko 25 simili muy petit petit votre touffé est maintenant prêt, il ne vous reste qu'à le servir bien chaud. Sa tout fait pare na li la rek que nga jël ko nga yekk ko ci En proposant éventuellement un peu de piment à vos convives. waaw nga jël ñi nga xam ne ne que sa gan nga boo yekkee tout bi nga tegaale ci bi Alors c'est de la purée de piment forcément. Hein. waaw mooy kaani bi nga xam ne que dañ ko ba pare. Effectivement et en accompagnement du touffé, c'est du temps effectivement li nga xam ne ne que mooy tufe boo ko bëggee dara lañ lay conseiller moy nga jël mburu bi nga àndalaay ko at touffé bi. est-ce qu'il y a des gens qui mangent le touffé avec autre chose que du pain Bintou euh, Touffé non parce que amna amna ñu na ñoo ne que gis na ne que à la place duñ ci def. Euh, pomme de terre. Mhm. mais dañuy jël euh, purée. Mhm. dañuy def pomme de terre bi. Mhm. gis naa boobu façon. dañuy def purée hein? waaw purée. mais ñu togg tout yàpp. ak carotte légumes yëpp. mais ce pomme de terre. d'accord pomme de terre bi dañ koy def purée. d'accord lekkaale ko en même temps. ah c'est bon ça c'est vrai ah bien sûr c'est cool ça donc euh, voilà c'était le touffé du jour <laughs> c'est-à-dire <laughs> le ragoût de veau euh, à la sénégalaise donc truc et astuce comme l'a dit Bintou vous avez la possibilité possibilité euh, de faire une purée à côté et de faire votre ragoût de viande aux légumes ah, sans pour autant mettre de la pomme de terre. Mhm. Ça, c'est une astuce. Ou bien, euh, voilà, cuisiner comme effectivement on a cuisiné aujourd'hui le tout fait le ragoût de veau à la viande. te am na am na ñoo xam ne ne que dañ tay def ak tomate. Mhm. moy uh, tufe bu xonk bi. amna na ñoo xam ne que tufe bu weex bi la ñuy def. ça dépend ci li nga bëgg rek. d'accord je savais pas que y avait le tufe euh, sauce tomate. si amna ñu kay def. Amna na ñoo xam seen tufe liñ ñu ciy dolli dañ ciy def ñebbe gëna a. Ah consistance bi. très bien ouais. ok Djibi Ndiaye qui dit comme soupe rek. Bon, je connais pas le soupe par contre. Tu connais toi? Oui, soupe Mm-hmm. Ce n'est pas loin? Non. Ok, d'accord. Donc peut-être que il y, a, moins d'oignons dans la, soupe de nard, contrairement au ragoût, où il y a plus d'oignons qu'on a voilà. et tout ça. Bon, bah, c'est terminé. Bah, aujourd'hui, on a terminé rapidement, 9h51